te ndam lu rëy li nu dëgg man la la mook sangi Tuuba te mooy jumaa janu sampal sëriñ ba biir capital ba jumaa ju taxawlu samp ca biir diggi wiil ba jumaa ja kenn du ko laate na ne jant njoloor ba fu waay taxaw ko seenu ma faw xalamp bu ngor ba ku ne njiyeemu banaa cay masaali kaare ba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 te istijoo yamu àndal noppal na gaayu peres ba foo ay taxaw nañu lay gis kamraaya war na ko fépp te kenn du te fu waxtu fu tollu gis motoram ba xurum ja na te garab ya war na ëttëm ba soroor ya nee nañu collet ca kaw juróom di limam ba man billaahi wallaahi ii mootina ci sëriñ ba ngir bi tabax li ci dem ci milliard te yem du bamba du ab état ko financé du et di banque Europe du bayti maal ya ca faasit du yooy ko wet du yu ba muriid yi ak ñu ñu xandal ñu jiite leen ne fa Tuuba ñu saytu seba bammat defal ko Bamba fa gox ba ngir nag Dakar dafa jooyoon ndax am mettiitu ca xol ba te sëriñ mag ba fa jaaroon te yan ko ba ñu koy sonal di ko tiisal te koy mettitu fa nii ba ñaari guddeef yelu siiw la ba mbaaye xal histoire ba waaye walaay mi ngi muñ xam ne fañ nanu góom ba jumaay Masaalikul mbég la way fay naqar wa ca booba bisub julee nga bu ak seenu kañ fa Ahmadu Bamba tabis la nag bunu waajal ko man ta teew ca jotaay ba kom dooni ak fu mu dooni na ñépp ñëw ca daloo ba Cees ak Fatick Matam ak Ndar Kawlax Luga goxi Tamba Kolda wa Kaasa wa Sédhiou wa dëkku or ba Kaffrine wa Jurbel mboolem seen gaalu nan wuy si Bamba Afrique Asie Europe ak Amérique fu Rabba Kaffrine wa Diourbel mboolem seen gaalu nan wiyu Bamba Afrique Aseeg Europe ak fu nit gëme Rabba woo nañ la woo la ca bis ba nde man nga teew si fa booba ca septembre wile lay doon wen set doon bisu mbég ba sunub sëriñ sunu yaakaar ka wuutu maam jafa tuuba seex murid bu dëggu ca xol mu jiitu bokk ya ko mu def Dakar ayu ba sa ilaahu bu booba ngeen xam ne kenn du Bàmba ku def mbégam ma sa mbégte dooral sa mbégte ba booba ku def mbégam na xaru na jooy ba matt loxoom ba yàllan ko fekke tatal ko te teew ci yaalu ci yool ba te yàlla fay ña ko saytoom ña leen dugal ci liggéey ba ak képp nit ku ca def lëf nu jot payam bisu pay ba amiin amiin amiin barke bu rasoolu yonen ba akeep nit ku ca def lëf nu jot payam bisu pay ba amina amina amin barke bu rasuulu yónnen ba salal ilahu koy dar fawak ñoñam ñay saxaaba basiir murid bi taxawlul takor ni nga gaar ba sallal ilaahu na koy dar fa war ñu ñam ñi saxaaba basiir murid bi taxawlul te kor yëgg nga gaar ba samay bayit mi ngi nooni def naa ko haddiya Tuuba yal nan ko nangu te def ma murid bu man di ci Bamba samay bayit mi ngi def naa ko hëddiya tuuba xel def naa ko hëddiya tuuba xel nan ko nangu te ma murit bu man di ci alhamdulillahi rabbil alamin mbokk yi kon wayi Cheikh Mouhamadul Bachir Lo ibnu sëriñ Malick Lo ñoom rek moo ko def mu ñeel jumaay Masaalikul Jinaan ji nga xam ne doon nañ ko liggéey ci ndigalul sëriñ bi mu àgg am jàmm nag mu am ci mbég def doli ci sàkku ngërëmul yàlla ak yonante bi ak sëriñ Touba kon ñu ngi mi ngi ñaan képp koo déglu rek nga ñaanal ko yàlla defal ko yooyu defal la ko defal ko bépp jullit alhamdulilahi rabbil alamin